avant tout ñuy wax onze billah bisimilah ina wali yàlla onze bila bisimilah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne ñu ngi santaat Serigne Touba bu wér a wér di santaat Serigne Touba bu wér a wér sax waaw di wax tey li fi xew nii tey xam na ne bettul kenn parce li tax bettul kenn mooy booy bi tëraay bi dafa yàgg te xam nga sonn na trop ndax ku tëdd ñaari at ñuy daw di wut ndimbal fu ne fu ne ñu dugg fa ngir rek bëgg mu jug ndax benn bu góor la ci yaay benn bu góor la ci pap mooy seen responsabilité famille xam nga mu loolu rek moo ñu si sooge woon ñu ciy daw di ci daw bu dégg bëccëg mais tamit yàlla mi nga xam ni moo ko wàcce woon ci jamono moo ko soxla moo ko jëlaat fu mu toll ni dara desetu fi lu dul ñaan ndax tey fi ñu ko war a jooy yëpp jooy nañ ko fa fi ñu war a daw yëpp daw nañ fa wax nañ ba suñu waxukaay jeex fi mu toll nii wax amatu fi dañ koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fu mu jugee yàlla suñu borom fay ko xolam yi atte ko ci yërmandeem waaw du dara man jàmm laa seq ak doomu aadama yëpp tey yàlla tere li ko dal nii su ma xamee nit ak ma ñàkk koo xam mu dal ko ma mun cee dox ñaari jéego pour yàlla suñu borom yëkkati ko barki Seydina Mouhamed dama koy def comprendre nga mais man du ma du ma man du ma cof doomu aadama. rawatina nag ci koo xam ne daa tëdd mënalul boppam parce que damay sóor sama télé suba parce que tey doomu aadama bu nekk war nga soor sa télé suba milliardaire sax bu tëddee kenn ay nekk ci wetam di ko dimbali waxuma laa ku yorul dërëm nekk responsabilité njabootam loolu moo taxoon tey ñu si xar suñu tànk tubay beneen affaire bi mu nekk suñu frère nekk suñu waay Abibulaay day rus sax moroomam barki Serigne Saliou Mbacke Abibulaay man mii daf maa rus ba du siggi xool ma te ñoo bokk génération bokk li ñuy def lu jafe ci àdduna comprendre nga Abdoulaye bu nuy wax ci moom fii duñ fi jóg parce que maam Serafal tey dañuy dëgër dañuy dëgër wax duñ tuur xéwal duñ def dara parce que ñun xam nañ xolam xam nañ kan mooy Jules Baldé Junior li taxoon ñu ciy sonn di ci xaru xam nañ fan lay féete doomu aadama musul gàntal kenn problème mu jàmbur problème am la Abibulaay barki Serigne Saliou Mbacke ku ko xam dëgg tey boo xoolee Abibulaay ay bëñam ngay njëkk a gis du gantal kenn ci dara mais Sénégal Sénégal métti na Sénégal war nañ xoolaat lan mooy Sénégal bu fekkente ni lii mooy Sénégal bu nekku nekk tiit ci boppam barki Serigne Saliou Mbacké musuma wax ci demee noonu mais bu fekkente ni lii mooy Sénégal na ku nekk tiit ci boppam balaa ñuy mën a taxaw ci sa bis nga génn àdduna ku nekk ñëw taxaw di écran te pourtant booy bam mu sonnee bëggoon nañ gis dix personnes fii yoo xam dañ koy taxaw te amuñu ko sol nañ suñu daal dugg fu nekk foo xalaat dugg nañ fa dem nañ ba ni leen ñun soxla wuñ sax ku may booy bi san franc dimbali leen ñu si génneel ñu ko mu dem bitim réew tubaab bi bu ko téyee lu yàlla def ñu xam ni loolu la yàlla def mais booy bi mënul woon wéree fii mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla moo ko jël kenn jël ko ndax tey ay milliards bu teewoon ñu teg ko bu yàlla suñu borom nee du jóg du jóg ay milliards buñ ko yoroon teg ko yàlla soxla ko milliards yooyu mënul remplacer décision yàlla mais gars yi nañuy bàyyi xel doomu aadama bu ñuy bàyyi ba nit génn àdduna rek ñu bugg a sonn ci moom booy bi ba feebaree yuuxu nañ ko ci télé yi ko ci rajo yi yuuxu ko ci émission yi fu nekk ñu dugg fa ñëpp croiser les bras ba booy bi xëy dem nii te booy bi tay ay moyen moo ko waroon a yëkkati fi mu tëdd yàlla nag mooy jël moo fi bàyyi ñi fi ne ñi fi ne defaluñu yàlla lu tax yàlla bàyyi leen mais gis nga doomu aadama boo yoree ay milliards yàlla dénk la xéewal day ci dimbali ñi nga tane dafa am solo parce que dafa am ñu am am ñu néew doole ñi am nañ dimbali ñu néew doole parce que tey dëgg neexul dëgg neexul booy bi nii tey tey tey am na moyen yoo xam ne tey buñ ko ko taxaw woon yàlla mi ma tiim xam ne ni yàlla mun na ko wéral te tey man duma wax sax ay mbër milieu làmb milieu làmb delloowuñu gars yi liñ moom parce que tey athlète boo xam ne day compétir yow moo la bàyyi ci làmb acteur lu mu rëy rëy ci làmb mbër mi bëree ko gën a rëy ndax mooy acteur principal bi tey kuy jëriñu ci moom ngay jëriñu muy communicateur beeg CNG bi ka toog ca kaw ak ci suuf mbër mi fekk bëriwul yow doo fa représenté dara booy bi tëdd feebar ñu yuuxu ko fu nekk kenn deful geste kenn deful benn akt tey waroon na ñëw mun a def bolok di àndandoo pour booy bi jóg ak keneen ku dul booy bi nag am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi seen ruq tëdd te représenté nañ lu nek ci làmb def nañ lu nekk ci làmb te kenn dimbal leen ñun dañoo tiit suñu bopp de mais ñun bu ñuy tiit suñu bopp tamit dañuy gëm ne ay taalibi suñ Tuubaa lañ ñun suñ Tuubaa lañ yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi ay taalibi suñ Tuubaa lañ ñun lu ñëw suñu kaw dañ koy sante suñu borom mais gars nañuy bàyyi xel doomu aadama yi buñ bàyyi rek ba nit dee ñu ñëw di représenté di taxaw di def ay affaire booy bi feebaram bi amul kuy toog ni dégguma ko foo ne ci àdduna dégg nga ko tey ñu ciy soxla cent ku nekk di ci soxla xelu ku nekk di ci soxla participation ku nekk kenn def ko comprendre nga mais tey am na loo xam ne rafetul ku nekk na nga tiit ci sa bopp te xam ne dëkk jamono ñu tool kenn dimbaliwul kenn ñi ko yàlla dénk ñu ngi seen kër toog taal seen i kilim yëguñu li xew te tey ku ci amoon wee buy metti doon nelaw ba fajar tey lii booy bi dal ko nii metti na torop metti na torop yan nga mujjee weccoog moom parce gis na ni ku ko jege nga woon démb su guddi ñoo mujjee man amul fan boo xam ne dinaa ko toog disponible te ñëwuma ci moom muy moom di keneen ak keneen képp ku ma mën a teewal dama lay teewal parce que maa ngi nii di dox rek mais suba li yàlla xam yàlla rek moo ko xam comprendre nga nit toog ngeen nii léegi comprendre nga di profité di jaale waale booyloo barki demb la dem géej entraîné ba pare fi mu entraîné ba pare fala taxaw dee te dara jotu ko këram la jóge dem ba géej entraîné def li mu war a def muy xale bu ndaw yàlla suñu borom jël ko barkaat démb damay dox ba ci tali syndicat bi benn chauffeuru kalandoo daa ñëw ba ci circulation bi si bi mu taxaw fala wàcc sedd guy yàlla mooy xool ko neex mu koy def ci jàmm mais man li ma naqari mooy ni day tëdd feebar ñu koy nodd ci rajo yi di ko nodd ci télévision yi di ko nodd fu nekk ñun ñu mel ni Pikine amuñu ay autorité ñun ñu mel ni Pikine amul ñu fi nekk yàlla dénk leen xéewal ñu war a dimbali booy bi ñu taxaw ku nekk di écran di jaay maa def lii te kenn defu ci dara Pape Mbacké la ñuy remercier deux ans yi booy bi tëdd yëpp Pape Mbacké mooy ndey mooy baay mooy lépp beneen keneen ku may gërëm mooy Kéba Kanté nit ku baax la Kéba Kanté xaw ma ko xaw ma këram nii laay dajeek moom nii rek ñu daan déggante nii si pet barki Serigne Saliou Mbacké Kéba Kanté bi mu déggee problème bi mu ñëwee bi mu tiimee Abdoulaye dafa sànni ay téléphone bi yuux comprendre nga ñëw jël booy bi en charge Kéba Kanté démb fii mu ngi fi jugee presque ay minuit la fi jugee yëkkati xaalis bëri teg si table pour ñu xëy yóbbu booy bi clinique ak ñu war a dem lijjanti ay kayitu booy bi pour ñu dimbali ko rawale ko yóbbu ko hôpital parce que dafa yéex a yëg problème mu booy bi yéex naa xam ni nii la demee ay nit taxaw fi naan diw jël na ko en charge moo taxoon mu toog ba mu demee ba xam ni lii lu sérieux la moom moo ñëwal boppam ñëw def fi lu nekk musuma defal 100 francs dërëmu Mali musuma koo jox mais geste bi mu def ci sama frère bii nii ba yàlla jël ko moo ma marqué ci moom nit ku baax la ba pare démb bi ma ñëwee fii nii fekkante wuñ fi dama ñëw ñu ne ma ñëw na fi ma yëkkati sama téléphone woo ko di ko remercier bu kàddu yu ma wax moo tax ma remercier ko parce que dafa ma ni soq ma ni ko naam mu ne ma booy bi tey waru waruloon sax yegg fii bu dee dëgg la mais gars yi dañuy seetaan ba tey yàlla def li muy def ku nekk doog a jóg te dem bi mu ma koy wax presque minuit jot na ñu koy waxtaanee ma nag moom ba deux heures du matin ñu xëy yàlla jël booy bi kon la ma doon wax la suñu boroom confirmé comprendre waaw parce que loolu moo fi nekk muy nit ku gëm yàlla barki sëñ Touba dañuy toog mu am métit boo xoolee xar kanam bi sa xam ni kii am na métit mais du la ko woon jàmbaar la jëngu na ba sonn ruwam bi malaaka bi ko jël barki sëñ waa xanaa raa gëm rek jël ko mais bañ na ba sonn jaayante na ba sonn comprendre nga mais nag dañuy sant dañuy sant man li may wax nii barki Serigne Saliou naqaru xol laay waxee yàlla suñu borom mooy jël ruu. parce que dama laa seet si tudd Jules Baldé Junior rek nga tur xam naa seen waaw tey nag. yàlla da koo jël ma dëgër di wax sama rongoñ du tuuru parce que xam nga lu tax def nañ lépp def nañ lépp mënatuñoo jooy ba mu ñëwaat suñuy loxo te ñun ay doomu aadama lañ li ko dal tey jombu ma jombul président Macky Sall comprendre nga te Macky Sall mii président réew mi su tëddoon yonent bi xam na ne ay nit ñoo koy tiim di ko dimbali ak ay milliards am ak ay biens am ak daraja bi ko yàlla dénk ak ku mën a doon di nga bëgg ku la wéeri di la soutenir mais booy bi dafa manqué soutien ba manqué soutien parce que Sénégal bii ñu nekk doo ma ne amul kenn koo xam ni war nga mën a débloquer ay situation pour booy bi mais dañoo seetaan dañoo seetaan waaw maa ngi remercier ñëpp nag gaa yaa ngi wax ay mbër yi mbër yi gaa nañ bàyyi détail yooyu mbër yi si war a jàpp yëpp jàpp nañ ci Ama Balde sonn na ci def na ci li mu mën Eumeu Sène fan yëpp chaque jour ñuy jokkoo ci booy bi pour ay affaire am booy ñaar ñëpp dégg nañ lim ci def kon gars yi nañuy bàyyi di jël ay fausse information di wax ay kii ko gën a jege waroon na koo dimbali kii ko gën a jege waroon na koo dimbali Abibulaay ñëpp ko war a dimbali amul kii ko gën a jege kii ko gën a sori ndax doomu aadama la jullit la bu dul jullit mu doonoon yéeféer sax tey yéeféer xanaa yéene woo ko tim ko muy de bu dee xolu jullit a nekk sa dënn nañu waxante dëgg tey ku ci amoon moyen yu ko mën a yëkkati da nga koy yëkkati man soq bu ma yoroon milliard mu leer ma ne moo ko defee torox yónnante bi xam na ne milliard boobu du fanaan sama poche ñi ci war a def li ñu war a def yëpp def nañ ko Eumeu Sène barki demb lañ démb la ñuy mujj déggante pour war a ànd ci Matar ba pour lijjanti ay kayitu booy bi ñu yóbbu ko mu tukki keneen ki may wax Thierno Ndom Ba kooku musul seetaan daraay Pikine gëj naa ko gis yàgg na mais feebaru Jules Balde Junior ba demb ci guddi barki salaatal fatiha la jox mortala duñu ngaa ko xaalis bu bëri pour bu ñu xëyee ñu dem yóbbu ko ci clinique ñu indi dossier yi ñu defar kayit yi ko war yóbbu Europe barke salaatul faatiha maanaam ñun fi ñu doon dawee coono ba yàlla ibbil ñu bunt yi nga xam ni booy bi dem moo ci des parce que tey la ñu waroon a defar ay këyitam pour mu dem si la ko yàlla jël kon moo lay xamal ni la ni yàlla suñu borom moo ko soxla moo ko jël mais man ñooñu nga xam ni man gis naa leen ñu def ma fekkee man duma ma waxal kenn loo xam ne bëgg lu la neex te jàppoo ci feebaru booy bi du ma wax kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko ndax yaakaaruma ci poosu nit yàlla laa yaakaar taalibi suñ Tuubaa bu ma amee cent franc damay doylu bu ma yorul dërëm damay nekk ci jàmm damay stable ndax taalibi suñ Tuubaa la waaye li may wax nii ma métti sama biir xol parce que ku tëdd pendant deux ans ñu koy jooy di dugg fu nekk mënuñoo am moyen bu yóbbu booy bu Europe ñun war nañ xoolaat suñu bopp tiitaat si suñu bopp te xam ni jamono ji ñu nekk nii ñun xaw ma ban jamono la te fii dëkku lislaam la tey yaakaar naa tey sa mbokku jullit bu tëddee war nga ci def le maximum gars yi dañoo seetaan